président assemblée nationale wala présidente assemblée nationale jomm leen. Hmm. parce que bu ñu fàtte ci liste passif y' a beaucoup de cadres qui ont été investis. Ouais. y' a beaucoup de cadres de même que ministre yoo xamante ne aujourd'hui sax ñu ngi ñu ngi ci biir ci biir liste bi mm. xamuñu nag lan moom la ñuy décider après dañuy des wala dañuy toog mm. mais ce qui est sûr et certain au sein de Pastef y a beaucoup de gens qui peuvent oui oui mm. président de l'Assemblée nationale parce que compétence bi ak vécu bi ak envergure bi mi ngi fa Abdou Nguer am voix yu jug jàpp ne ah. euh, Ousmane Sonko dafa war a des par primature ñu jàpp ne dafa war a dem Assemblée nationale ban gis-gis nga si am lu mu ci def baax na mais man nag du ma ko conseillé ndax sequñu ko waaye dem assemblée gën ci moom yow laa wax dem assemblée de moo gën ci moom. Hmm, lu tax. ah waaw mënul nekk premier ministre ñu bëgg a confiné wu Afrique rek mënta ne te ñun nag waruñu am premier ministre boo xam ne sa waay ëllëgam leerul de. maanaam lan moo lëndëm ci ëllëg. ah foofu daal junj doy na borom xel. est-ce que doo leeral à mën nañ ko perte. moom waaw. il quitte le Sénégal mën nañ ko perte de. c'est-à-dire. loolu laal foofu laay am lépp kenn du ko wax xanaa Afrique rek lay toog te yenn pays ci Afrique sax pour mu dem fa da ko dañ koy. xoolaat soo déggee Ousmane Sonko ñemeetul génn Sénégal loolu nga bëgg non mën na génn Afrique kay fa la neex dem waxuma ñemewul de. yaa ne damay alerter de dama wax ñemewul génn. waxoon nga ko de. am nga vidéo bi. lu may wëri vidéo nga wax ko ma fekkee ko la yow li génn. li nga may waxal yëpp te mënoo ko ne bari na ah. waaw. man de kii li mu may waxal yëpp te mënu koo génne bari te man de lu ma ko lu ma leen waxal génne ko ndeysaan. sonn ngeen mais mais boobu ñor na ma dafa ñemewul génn wala daa mënul génn li ngay wax waxuma ko dama ne. Hmm. fay moo gën ci moom. yéen ni nit ñi di wax ne peut-être da ngeen ko a a. am accès ci Diomaye moo tax ngeen bëgg ko yow. loolu moom bokk na ci ambition bu ñuy évan bu ñu leen di defal seen bilan 2029 dañ leen di boole teg leen ñu dolli leen baa ñu boole leen def leen lañu leen di def man moom lu logique boobu sax nekkuma ci quand même. Hmm. newuma ci logique boobu waaye dama ne dem fee daa gën ci moom nekk président deuxième insi deuxième personnalité. de l'état waaw. jàpp njàmburam bu amee xalaatam wax ko jomaay bu amee lu muy proposé wax ko ko jomaay déggal na ko. est ce que da ngeen bëgg mu sori làngum politique gi pour ngeen gën a yaatu man bu mu sori man dama amal benn njëriñ sama yoon da cee ne man Ousmane dëkk pale dëkk mbedd bi laa yamale di sawa yow tamit yéen faaw ngeen xam Ousmane fi ma ko teg. d'accord xam nga loolu faaw nga jàng nit ki nga xam nit ki fi ko teg te dama ne la dafa am loo xam ne saa waay nañ ko waxante dëgg. Hmm. noo nekk premier ministre. te moo amoo benn relation extérieure tey jii Bassirou Diomaye Faye coonoom bi mu nekkee voyage yu dul jeex yi Ousmane mënoon na ko wàññil xaaj bi. déedéet mais Bassirou mu ngi ci rôle moom mooy gérer diplomatie réew mi. waaw daa mais attention. Hmm. président yónni nañu bataay. waaw président yi fi jaar ñaata yoon lañu yónni seen premier ministre mais lii kii lu tax moom sa waay affaire yi doy na waara ah. mais tamit dañu am président boobu te ko a xam au niveau international est-ce que du loolu mais kon suñ premier ministre waruñu ko xam au niveau international te léegi hmm. mais tey suñ alal ji ci war a def ku koy défendre yi premier ministre ah fu muy dem Afrique gii moom mënuñu ko jox alal jum def ci référentiel bi nañ waxante dëgg léegi da jàpp ne ñemewul dem bitim réew wala ah waxuma ñemewul <laughs> lan la Abdou Nguer loo xam lu ñu xamul maa ngi nuyu sama rakk ji Saar ndeysaan génn na. jaañu la mees. maa nuyu sama rakk ji Saar. aji mu sell mi <laughs> l'essentiel daal. Hmm. <laughs> xam naa temps yi sax léegi ma dem léegi ma dem Paris am yu ma lijjanti. est-ce que newul la gaa yi nee nañ da ngaa bëgg a daw temps yi. loolu la ñu eh, déedéet déedéet. nee nañ eh. bi nga doon xaar pour ma a dem génn. non Sénégal rek laa bëgg man Sénégal moom wax dëgg yàlla réew mu ma gën a bëgg nii man Mohamed ma bëggoon Modou Modou ji dem naa bu yàgg. man Europe vacances rek moom fa mën a yóbbu ak Amérique. d'accord man maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla weer bu dee ñu yox ma ma téye man aw ma problème kon léegi man lan laay daw wutim réew loo fay wuti liggéey mais am naa liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla maa ngi sant suñu borom te yàlla na yokk nag. am na ñu naan te sama wërsëg yaatu naa waaye nag dama ne Juan Branco dafa porté woon plainte Macky Sall Paris. te la porte porté plainte Macky Sall Paris mooy yi fi xewoon. Hmm. te tubaab yi nag dafa am indépendance. Hmm. mais te tubaab yi ñoo Sonko seen diggante rafetut neexut. Hmm. est-ce que Sonko tey bu ne woon cëpp dama damay xalaat dama lay wax rek bu ne woon cëpp traité wàllu Europe. Hmm. procureur Paris ubbi dossier bi. Hmm. auditionné Macky Sall laataa sonk di génn traité Paris mu convoqué ko. auditionné ko commencé dafi enquête am dem ba gis ne mbir mi Sonko mi laale na ci léegi moom nu muy def. nu muy def wax ñu ko. moom ma jaaxal <laughs> maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. des <laughs> des ngaa comprendre. Juan Branco dugal na souveraineté réew yi ñu am dugal na souveraineté la. ba xam premier ministre réew dina génn dem ci réew mu mën a ko. kii gis nga France <laughs> ak justice Amérique premier ministre rek. Hmm. douzième ministre rek quatrième ministre lañ ci yemale. ñoom seen premier ministre sax bu jàddee yoon dañu koy ki mu ñëw ñu réglé problème am. Hmm. doomu président Amérique yóbbu nañ ko kaso. bu yàggul bàyyi ci xel nag. amoon naa mbégte ànd yow di la bàyyi tàggatoo sant gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm Juan Branco nag dugal sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanalaat réew mi nag jàmm di ñaanaat nag yàlla na ma waa Pastef rusloo moo ñu def li ñu wax. mais dossier aji bi nga tudd am na rebondissement temps yi de am na lu ñu ciy dégg de. kenn du ko. Hmm. lu la concerné yow hmm. ah, ah, loolu sax. d'accord. grand sëriñ amoon naa mbégte ànd ak yow. maa ngi lay jaajëfal waaw mbégte partagé. waaw yow la ñuy jaajëfal jaajëfal également say téléspectateurs ak euh, waa régie bi. merci. jaajëf alors ami internet yi doon suivre seen Teranga TV ah, li lañ amoon yéene dégtal leen ko ci Teranga matinal àndoon ceeg Abdou Nguer si jàngat gi ak ki nga xam ne moo di Serigne Nia ah, jaajëfal leen yéen itam ci topp geeg teewlu gi way leen di abonné di partager di commenter di like loolee moo ñu yokk doole seen Mamadou jërëjëf yow mi nekkoon ci régie bi ah, jamanka aussi ñu ngi koy jaajëfal de même que Badji di leen dig daje ci kanam ci suñu yeneen plateau